Sénégal fii ñu nekk moment bi ñu toll nii war nañoo mën a dépasser pour yi di amee bakkan bi ci tuuru wala ñu ci noonoo te ñi nga xam ne ñoom la ñuy bëgg a voter ku ci falu rek amaan ne yéen ñi nga xam ne yéen ci doon daw wala yéen ñi nga xam ne ñu ci doon sonn seen njëriñ bu ngeen ci gis lu tuuti la amaan na wala du ngeen ci gis sax njëriñ moo tax euh, may ñaax képp kuy sénégalais. na bàyyi ba bés ba jot mu yëkkati kàrtam votel ko ko neex di massaw ñooñ ñi nga xam ne ñoom la toor bi dal ca Tambacounda di ñaan yàlla ki génn àdduna yàlla xaare ko àjjana te na fa yem di wax politique yi tamit di leen ñaaxaat ne leen lii mbiru àdduna dong la fi rek la yam lañ def lank nga xam ne ñoom ñi ut Sénégal mu na leen ñor na leen peuple Sénégal ñor na leen intérêt Sénégal ñor te ñu bañ a jiital seen intérêt di ko njëkkee ci son excellence euh, président de mag sànn ci moom laa njëkkee moom bi ñëwee am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax a baax gis nañ lim liggéey gis nañ tamit lim taxawal ci suñu réew mii mu ngi góorgóorlu mu ngi def lépp lu mën waaye di wax sénégalais rek ne leen nit mën ta matal <clears throat> parce que Euh, mat ci yàlla la jekk te boo xoolee sax yàlla mi nga xam ne moo bind jaam ñi dafa jox ñi xañ ñi kon ñëpp mënuñoo matal waaye tamit nañ bàyyi xel bu baax a baax ne lu pour lu joxaat ko deuxième mandat luy am njëriñ la suñu réew mii nii parce que keneen ku ñu fi indiwaat tamit balaa muy commencé waat tamit danañu indil ay tardement yoo xam ne tardement yu doy waar kon ñu jël ko moom euh, président de la république Macky Sall may ko beneen chance. mu mu yeggale li nga xam ne moom mooy yéeneem parce que président bu fi ñëw boo xoolee Senghor def na quatre mandats Abdou Diouf def na trois mandats Abdoulaye def na deux mandats kon Macky Sall lañ ko fexe ñu may ko deuxième mandat mu continuer li nga xam ne loolu la loolu loolu mooy mbébétam di di di di wax ne nag tamit ñu ñu ñu jàppale ko mooy suñu njëriñ mooy njëriñ ñëpp waaye moom tamit di koy dolli euh, ñaax moom sëñ euh, مكسال تبغى خامل لكو مين كول لين ديك مين اي سالم سالم لين تنين سالم لين جام من خامنا نو باخ باخ ان شاء الله موم دينا دينا فروات لون موم لير لا ماكي دانا ام دوزيام مالا دانا فروات ان شاء الله لير موم لما غارانتي لا واي لي نيو باير خاصو نكاو لك كاو لك مان بوماي تان ñaar nit kessa lay tan ñoo xamni oolu na len ci kaw rek te buñu len joxe kaw rek inshallah dinañ ko liggéey ñi nga xamne ñom ñoy euh, ñom nekk muy maire bu jigéen bi euh, Mariama Sarr Mariama Sarr bi ñuy ñëw Kaolack pour nekk Mariama Sarr dëkkul Kaolack parce que moom mu ngi dëkk ci ca Jolof fa la dëkk kon moom xamul réalité Kaolack xamul luy Kaolack xëy na par heure la ko Macky Sall falo te Mariama Sarr dégg nañ ci moom fan yi dem na ba Medina Baye def fa jëf ju ñaaw jëf joo xam ne jëf ju ñu jëf ju ñu naqarul la naqarul nañ ko loolu sax parce que lu toll Medina Baye dëkk Cheikh Ibrahim ñes nga dem ba foofu noonu lu toll ni seen Cheikh Ibrahim Niass muy Cheikh Mouhamadul Mansour Ibnul Maamoun Niass nga dem nga da ngay jotee ak moom ba génne ay fetal moom ak borom këram nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax parce que tey ñoom ñoo fa nekk te mënuñ fa def dara marché Medina Baye loolu mënul euh, sax fexe ba pare te jëkkëram lañ ko jox. dañuy ñëw ci dëkk mooy waxat tamit foofu dama benn point bu nga ci bu ci taxaw nañ ñoo waa Medina nañ bàyyi xel bu baax a baax ñooñu di ñëw ci parce que ñooñu amul njëriñ Medina seen poche lañ amul njëriñ dañuy ñëw di ñëw xeex doomu dëkk bi te ñu xam Mansour lim lim li mu bëggee Medina Mansour def na jël na Medina def fetele moo fa njëkk indi dale muy indi fa rajo ba pare ñëw def fa loo xam ne macha allah euh, entreprise bu rëy jël fa doomu Medina ñu fay liggéey. kon kooku ku bëgg Medina la ku bëgg Kaolack na te moom sax Macky Sall war na ko mën a boole ci programme yi nga xam ne ñoo war a mën a yor Kaolack te war na ko mën a yor te mën na ko yor tamit parce que moom jàng na am na xam-xam am na ay diplôme président Macky Sall jafe na ci président yi parce que tey jii Ousmane Sonko bi ñuy wax moom moom nee na dafa bëgg a nekk président ñëw na indi na programme am waaye programme bi indi man de li mu ci gis lu bëri programme boo xam ne tey yow da nga bëgg a nekk président di xas. di sulli ay secret état kon yow boo nekkee président lan ngay def réew mi loolu jar naa xel parce que alquran ñun alquran lañ jàpp daf ñuy wax lu leer naan yaa ayyuhallazina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum alquran loolu la wax daf ne yéen ñi nga xam yéen gëm mu ne mu ne topp leen yàlla topp leen leen ci bi waaye nag ñan ak seen seen seen seen seen seen seen njiit ñi nga xam ñoo leen féet kon Ousmane Sonko war na bàyyi xel bu baax a ñu ko féet parce que mom xale la mu ngi ci yoon dëgg la nag am na naw naa ko lool parce que ku am am ku am talent ku am avenir la ci politique mais du du du du waxtu wi ni waaw ñun 2024 après après 2024 dal am nañ ci mom yaakar bu baax baax mais du waxtu wi te na def nank waaw na def nank bu baax baax baax nok am yar tamit ci ni mi waxe te wax ji tamit na koy tek ci deug parce que deug lu baax la tamit bu ñëw di di bëgg rek dara rek tax ngay saga nit wala ngay xass nit loolu baaxut waaw loolu baaxut na bàyyi xel ci loolu baax a baax yaa ngi nekk sa nekkal ci sa yoon waaw parce que gis naa ci liir naa ci fan yi passé muy expliqué ne ne ne ne ne ne Macky Sall dafa fay ay 10000 mille waa Casamance pour ni loolu tamit rafetul moom Casamance de quoi respecté wul waa Casamance parce que tey bu respecté waa Casamance du wax ne comme Macky Sall dafa jënd. waa Casamance ku nekk dix mille loolu fan lañ ko ak nit ñu bëri ñoom ñoom nañu respecté nit ñi nañ ku ci nekk rek na nga doxal fi nga war a doxalee moo gën ngay ŋàññi sa morom di bàyyi moroomu jàmm euh, di di di di di bàyyi sikk ku ci nekk rek am nga si sikk waaye nag no góorgóorlu bàyyi man su ma sañoon mooy dafay bàyyi ba deux mille vingt quatre Macky Sall toogaat ah mu soog a xool li muy def ñu euh, jàppale ko euh, fal ko. parce que ñun Macky Sall bi muy bi muy bi muy ñëw 2012 waxoon nañ ko ay waxi leer bi mu ñëwee ba euh, waxoon nañ ko xamal nañ ko ne incha allah di nga waaw te loolu lu jar a bàyyi la te na moom na na am yar xam ne ñi fi nekk ay nii ay ñoo ko mag mën nañ ko bàyyi ñii fi nekk ñii mën nañ ko nijaay na respecté nit ñi na joxe cër moom Ousmane ko ñaareel bi mooy Idrissa Seck moom na def nang parce que chaque instant rek lay gën a ci boppam te idi man man man de du ma du ma wax mais idi óoluwuma ko parce que ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booy wax da nga war a wax loo xam ne lu leer la ci moom loo maîtriser parce que nit ki booy wax da ngay wax lu nga maîtriser wax li nga xam